Monsieur le ministre de l'économie, honorable député ici présent, au conseil de collectivité ici présent, président du conseil départemental également présent, chers proviseurs du lycée, chers censeurs, chers professeurs du lycée Plan Djahaï, et très chers élèves, chère population de Djahaï, à son sein, nos très chers invités. En tout cas, mon nom et au nom de toute la commune de Djahaï Parcelle, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre très chère commune. Également, Monsieur le ministre, retrouvez le calme, retrouvez la paix, puisque cette cérémonie-là ne peut nous apporter que du bien, notamment sur le plan pédagogique. Par conséquent, vous et votre staff, nous leur souhaitons la bienvenue. Je suis également accompagné de tout le cabinet du maire au niveau de la commune de Djahaï Je J'ai également accompagné du bureau municipal. Les adjoints au maire sont là. Je peux en citer le premier adjoint, Mohamed Rasoulillah Hidat. Les conseillers municipaux sont là. Par conséquent, Monsieur le ministre et très chers invités, vous êtes accueillis par le conseil municipal de Jahaï qui, à son sein, reconnaît ce geste hautement symbolique qui ne pourra que booster l'éducation au sein de notre chère commune de Haïpassel. Mon discours d'ouverture est en français, mais, monsieur le ministre et très cher honorable, je ne pourrais m'empêcher d'en glisser quelques lacs de Kotchoubar. Salam alaikum Bokki. yi c'est Majal ma jël wolof dama bëgg discours bi si ñi fi teew ci turub population bu jaxaay parcelle di ñaan ci barke koor wi di wax ne temps de la politique dafa am le temps de travail dafa am ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla natt ñu fanu lillaahi wa rasul yi nañu yërëm askan wi nañu yërëm askan wi nañu yërëm askan wi politique am na bu jeexee jeex nañu futteeku ñu liggéey joob lu bari liggéey lu bari mais aussi wax lu bari bañu ko coow li na bari waaye nañu joob lu bari liggéey lu bari parce que on nous attend sur le terrain gestes yu mel nii tey ñun yooyu lañuy xaar kon ñaan nañu teg les querelles intestines politiques ci suuf dañu liggéey ngir askan wi bët bu dusul toj bët bu dusul toj toj man yaakaar naa ni élection yi passé man en tant li ma tànkal askan wi rek doy na sëkk te dama ciy baalu dama ciy baalu di ci tuub fal nañ ma maire non damay noppal askan wi ñu liggéey am nañu gan nag muy le ministre dañ ko war a tartu dañ ko war a tatagal dañ ko war a xumbal woyal ko mais dans le respect la discipline et dans la correction la politique au sein de jahaï notre commune et notre population ne méritent pas ça nous avons une commune monsieur le ministre qui a été érigée commune en 2011 2011 avec une délégation spéciale 11 ans 11 ans bon, ko ci 2022 xoolal fi Jaxaay toll ndax lan ku damane ne ngir barke weeru koor bi damay ñaan sañ ma rek damay ñaan ngir barke weeru koor bi dañu teg mbir yi ci suuf dañu liggéey Jaxaay mérite plus que ça lycée bii bu muy tijji mi ngi taxaw ñun lycée bii bi muy tijji mi ngi taxaw man bu ma sañoon dama naan jàngale naa ci lycée bii étant fonctionnaire te kenn affecté wu ma fi donc j'ai pris des risques pour ce lycée c'est une occasion solennelle de le dire Et yeneen ak yeneen yu ñu defal taxaay mais c'est pas le moment lycée bi suñu lycée nous dañuy continuer de ko accompagner nous en tant que maire en tant que professeur en tant que bon citoyen pour dalal xelu professeur, dalu xalal censeur dalal xelu professeurs yi ak élèves yi ndax bu mu ci jugee kenn ku des ci personnel lycée bi muy ma très chère sœur et ma présidente Yama Bani, madame Koulibaly, mais man ak moom ñoo bokkoon commission éducation mu que la présidente mu que le rapporteur on avait une vice-présidente qui une accroche, on n'était pas du même parti elle était de la paix. moi je suis de au Sénégal et fier de rester au Sénégal pourtant dañ doon liggéey Elle elle liggéey ba nit ñi foog ni ñoo bokk parti ça c'est un comportement de citoyenneté ça c'est des actions de développement Vous ñu des actions de développement nous n'avons ko et je pense cher ministre de l'économie Amadou Hott que ma di ma invité démb wax tant que politique Sénégal je remercie la présidente elle mérite plus plus que ce qu'elle a occasion bi am pour wax parce que la il nañ keneen jàppale keneen parce que fii kuñ fi jàppale tugoom la suñu bopp lañ ko def kuñ fi jàppale tugoom la suñu bopp lañ ko def jaxaay moo ciy gagné monsieur le ministre di profité di gërëm parce que on a au CM Parcelles Assainies unité 20 def huit classes yu nga xam ne d'ici deux mois mu pare ay salle montage la comme case des tout bu jaxaay am monsieur le ministre à ma qualité de maire dama lay gëreum ci projet bobu nga xamné c'est un projet de l'État mom bu jëlee kaddu dina ko léral mom lér ci askan bi ama qualité de maire wax na ko ko sank dina ko waxaat ci micro bi huit classe tuuti na dañuy may nak te dañ ko bokk Sénégal di yëpp motax ñu ñaan nako ko de mais ñu passé à 10 classes ñu amagon CM ñu tawé 10 classes agum en attendant ñuy mën leneen lycée bi deux salles la may bu ñu sonoon nga yokk ko ba cinq salles cinq salles la ñu bëgg monsieur le ministre parce que espace mu ngi fi mon plaidoyer aussi à mon nom et au nom du président du conseil départemental mon cher Ami Babacar moo fi am compétence lycée bi fii liñ fi bëgg ñun ñu bokk Jaxaay dëkk Jaxaay bâtiment immeuble mag nañu bëgg comme ñu nekk lycée Limodak bu cher Jean Lamine Mané comme mi lycée zone de recensement c'était des projets certes mais immobilier yi dit noonu fii am un espace mun nañ fi def ben R plus 3 R plus 4 R plus pour que le maximum d'élèves puisse épanouir. l'administration du lycée mën a en paix les professeurs jàngale ci jàmm ak en tout cas monsieur le ministre li les 300 tables la mairie dina yëkkati au maximum cent table banc dolli ci wala au minimum cinquante table dolli ci ndax wax nga ma ne les trois cent table banc c'est pour toute la commune avec les lycées kon nag ñun en tant que commune mënuñu lu dul dem lijjanti mu ne mu bari ñu dolli ci ndax lu waay di def ñun nga koy defal lu waay di def ñun nga koy defal bu terminé di tàllal sama dënd di tàllal sama loxo di tàllal sama làmmiñ di wax ne Comment mën ñëwal def Birama boo mënee ñëwal Dieng Ndiaye boo mënee ñëwal Ibrahima Ndiaye boo mënee ñëwal Maodo Malick ku mën na man si suma ku mën ñëwal nga l'essentiel que tout soit fait dans la discipline dans l'organisation et dans le calme et encore une fois que Jaxaay seul gagne vive de mais vive la commune de Djahaï Parcel. Merci beaucoup, chère population.